zéro daal lañu fa euh, daal di am euh, mu mel ne nag foofu itam coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo daal di rek jël li nga xam ni moom mooy raw gàddu bi euh, moom la doon nemmeeku boo xoolee ci centre de bureau de vote yi ñu jot dégg yëpp fu ñu fi lim da ngay gis ni Yewwi Askan Wi moo fa gañe Euh, xam naa ne it bu li ëpp wàccul it bu li ëpp wàccagul it li ci des daanaka li jàll moo ko ëpp mhm. te fun fi dem rek da ngay gis ni yeew yi moo fa gañee mhm. ñi ngi xaaral yi nag euh, fi nga xam ne mooy yeneen bureau de vote yi lu mhm. nu am tam bu ko da ci li bingoo ne nga jël ko voilà ñu euh, bi nga xam la Khadija may ko voté wee ak ministre bi ne ne Fatoumata Tall yi génn na foofu quatre classes yëpp Euh, bureau numéro un bi nombre de directeur bi cinq cent six la mhm. nombre de votants deux cent trente sept mhm. nombre de votants hors bureau deux la nombre de bulletins nuls zéro mhm. coalition bokk gis-gis zéro voix coalition naataange askan wi am fa benn voix coalition alternative pour une assemblée de rupture am quatre voix. Mhm. coalition Benno Bokk Yaakaar am quatre vingt six voix. Mhm. coalition Bunt bi am ci benn voix. Mhm. coalition des serviteurs am sept voix. grande coalition wàllu Sénégal am neuf voix. yeewu askan wi am ci cent vingt neuf voix. d'accord foofu yeewu askan wi moo gagné. moo gagné bureau numéro un. bureau numéro deux bi. bureau numéro 2 bi tamit. waaw. liste inscrite bi 505 la. Mhm. nombre votant 251. Mhm. bulletin nul zéro. bokk gis-gis am fa zéro voix. Mhm. naataange askan wi zéro voix. alternative pour une assemblée de rupture six voix. benn bokk yaakaar am ci quatre-vingts voix. coalition Buntu bi am ci zéro voix coalition les serviteurs am cinq voix coalition Wallu Sénégal six voix Yewwi Askan Wi am ci cent cinquante trois voix bureau numéro trois bi nga xam ne moom la Khadija may ko fotowee bokk gis-gis am na fi deux voix naataange askan wi am fi zéro voix alternative pour ñu ensemble de députés am deux voix Benno Bokk Yaakaar am soixante dix neuf voix coalition buntu bi am fi zéro voix coalition les am fi neuf voix coalition wàllu Sénégal am fi neuf voix mhm. Yewwi Askan Wi am cent quarante trois voix fi la Khadija May convoqué bureau numéro trois mhm. bureau numéro quatre bi nga xam ne moom la ministre ne ne Fatoumata Tall Bottoé. Mhm. nombre d'électeurs inscrits 506 la. nombre de votants 241. nombre de votants hors bureau 2 voix 2 2 la. nombre de bulletins 0. nombre de suffrages valablement exprimés 241. bokk gis-gis am fi benn voix. naataange askan wi am fi 0 voix. alternative pour une assemblée de rupture am ci sept voix. Mm-hmm. benn Bokk Yaakaar am ci quatre vingt quatre voix. Mm-hmm. coalition Buntu bi am ci zéro voix. coalition Les serviteur am ci huit voix. coalition Wallu Sénégal am ci trois voix. Yewwi Askan bi am ci cent trente sept voix. Mm-hmm. loolu mooy école bi nga xam ne mooy bank islamique bu golf. d'accord. d'accord euh, euh, Fadel mu mel ne foofu itam ci euh, premier résultat yi nga xam ne am nañu ko Yewwi Askan Wi moom moo fa jëlagum raw gàddu gi moom it. moom la ñu gis li may wax rek na ñëpp gaaw wàcc rek ñu xool rekk ku ci li ci sa wàll jox la ko mais li ñu déggagum daal. jàpp na ne te actuellement daal Yewwi Askan Wi actuellement. Mhm. moom moo demineegum. parce que amu ci fenn foo maa ngi déglu fu ne gañ fa yeewi askan bi. ci mhm. li ma déggum lépp. Mhm. jàpp nañ ni yeewi askan bi ma fu mën a gum. Mhm. ba tey tam nooy des parce que am na ci ay yenn ci bureau dafa yoo xam ne génnagunu. te peut-être dara mën naa feeñ foofu ah, mais daal li ñu gisagum ak li ñu déggagum ak li ngeen di ci image yi nii yeewi askan bi actuellement moom moo gañee gum ci résultat yi ñu jot a am yëpp. ci ni ko déggee ñu ngi xaaree nag ñeneen ñi waaw euh, ku ci mel ne tey Dieng ba tey ji fa Amadou Ba voté bëgg nañu xam te foofu lu fa ne. Mhm. bureau parce que tam boo xoolee euh, bureau euh, titulaire yëpp am ñu ngi wàcc mais bosom amaguñu ko ak ñeneen ci bureau de vote yi nga xam te ay kilifa voté nañ fa tam bu dee ku ne ci ligne bi rek ñu mën koo jël mais daal ngeen xaar te xam ne lépp dina leer fii ci Dakar Buzz incha allah. Mhm. voilà allo. aloo oui. waaw. alors am nañu le cumul des résultats bu centre Nago Samb. Euh, bureau de vote numéro 10. Mm-hmm. coalition Yewwi Askan Wi moo fi mené ak 163 voix. Mm-hmm. Euh, grande coalition Wallu Sénégal am fi 9. Mm-hmm. les serviteurs am fi 9. buntu bi amuñu fi dara. Benno Bokk Yaakaar am fi 85 voix. Aar Sénégal am fi 6. naataange askan wi am amuñu fi dara ñoo ak euh, bokk gis-gis liggéey. allo dafa mel ni dem na de. allo allo waaw mhm. bisimilah ñu ngi lay déglu. voilà léegi euh, bureau de bu ñu ñëwee bureau de vote numéro numéro treize. allo mhm. allo ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. waaw bu ñu ñëwee bureau de vote numéro treize. waaw. Euh, coalition Yewwi Askan Wi ci cent mhm. fi six voix. les serviteurs am fi cinq buur bi amuñu fi dara Benno Bokk Yaakaar am nañu fi cinquante sept Aar Sénégal am nañu fi trois naataange askan wi amuñu fi dara ñoom ak a bokk gis-gis liggéey voilà bu ñu ñëwee ci bureau de vote acca bureau de vote numéro quatorze coalition Yewwi Askan Wi am nañu fi quatre vingt dix waaw wàllu Sénégal am nañu fi deux voix hmm. les serviteurs am nañu fi trois hmm. bunt bi am nañu fi dara Benno Bokk Yaakaar am nañu fi quarante quatre hmm. Aar Sénégal am nañu fi quatre voix naataange askan wi amuñu fi dara bokk gis-gis liggéey benn baat lañu fi am voilà bu ñu ñëwee ci bureau de vote numéro quinze coalition Yewwi Askan Wi am nañu fi quatre-vingt-dix wàllu Sénégal benn baat lañu fi am ñoom ak les serviteurs benn baat coalition mhm. buntu bi amuñu fi dara mhm. Benno Bokk Yaakaar am nañu fi quarante-cinq voix Sénégal amuñu fi dara naataange askan wi amuñu fi dara bokk gis-gis liggéey tam amuñu fi dara mhm. bu ñu ñëwee ci euh, bureau de vote numéro 9. Uh-huh. coalition Yewwi Askan Wi am nañu fi cent quarante neuf voix. Wallu Sénégal am nañu fi dix. les serviteurs am nañu fi douze voix. buntu bi amuñu fi dara. coalition Benno Bokk Yaakaar am nañu fi soixante onze. Aar Sénégal benn baat lañu fi am. naataange askan wi am nañu fi benn baat. Uh-huh. kuréelu ah, bokk gis-gis liggéey am nañu fi deux voix. Mhm. aja bisimilah. waaw bu ñu ñëwee ci ah, bureau de vote numéro huit. Mhm. coalition Yewwi Askan Wi am nañu fi am nañu fi cent quarante sept voix ngeen baal ma. Mhm. coalition wàllu Sénégal am nañu fi neuf voix les serviteurs itam am nañu fi neuf voix. coalition bunt bi benn baat lañu fi am Benno Bokk Yaakaar am nañu fi quatre-vingt-trois Aar Sénégal am nañu fi trois voix euh, naataange askan wi amuñu fi dara bokk gis-gis liggéey am nañu fi deux voix mm-hmm. bu ñu ñëwee ci bureau de vote numéro cinq coalition Yewwi Askan Wi am nañu fi cent quatre-vingts coalition